nga nuyul ma groupe yëpp sa membre groupe yëpp nga nuyul ma leen man maa ngi tudd Mariama Faye maa yor lépp luy éducation information pour la santé district Guédiawaye maa ngi ànd ak kiñ naan madame Diouf ak Bati Diallo muy point focal superviseur programme élargi de vaccination ak surveillance épidémiologie district sanitaire bu Guédiawaye ma ànd ak ki nga xam ne moom mooy madame Ndoye Tagui Maye Gueye mu nekk suñu superviseur de santé soins primaires maa ngi ànd ak ki nga xam ne mooy madame Ndiaye yaama si muy point focal SRAJ santé de la reproduction euh, ado adolescent jeune ak euh, euh, GDD <laughs> gestion des données VIH muy feebar maladie bi ñu naan Sida ñu gën ko xam ci virus. li nga xam ne moom mooy VIH donc bi ma nuyoo ba pare maa ngi remercier bu baax a baax a baax kii di bi nga xam ne mooy groupe bët tey li ñu tax a ñëw ñu ko tuddee garage théâtre sur le programme élargi de vaccination loolu mooy lan garage théâtre sensibilisation la forum théâtre la ci wàllumu programme élargi de vaccination bu ñu ne programme élargi de vaccination mooy lii di ay ñàkk yi nga xam ne ministère de la santé daf ko dugal fii ci Sénégal pour muy xeex fukki feebar ak ñeent su fukki feebar ak ñeent yooyu moom ngeen gis ñu mandargal ko nii ci banderole bi muy calendrier vaccinal ñu tuddee ko loolu suñu doom yi nga xam ne ñu ngi koy juddu ba am fukki at euh, astafurlah ba am fukki weer ak juróom ñoom ñoo koy jël ak suñu doomi jigéen yi am euh, euh, juróom-ñeenti euh, at ak ñeent ba jëm ci fukki at ak ñeent muy 9 14 ans noonu la programme bi tëddee day les les 14 maladies yooyu ñoom ñooy moom la ministère bi indi ay ay ñu war a aar ci li nga xam ne moom mooy fukki feebar ak ñeent yooyu ñu tuddee ko. les 14 maladies dans le programme élargi de vaccination lii di vaccin yi euh, mandat da ko nii nii mu tuddee mu tuddee ko calendrier vaccinal mu ñëw pour aar xale yi donc loolu lii di groupe bi biñ leen ko waxee dañu dañ ci sawar parce que am na loo xam ne yéen ñi di artistes yéen a ko mën a jàllale c'est vrai que waa kër docteur ñoom ñi ngi dugg ci koñ yi ñoom ñi ngi fi nga xam ne mooy structure sanitaire yi ñu ngi waxtaan ak yaayu xale yi fay ñëw ak parents yi ñi ngi leen di waxtaanal ci vaccin yooyu euh, différents vaccins yi mais yéen aussi dafa am euh, euh, benn bëb bi nga xam ne ak benn importance bi nga xam ne société bi dafa leen ko jox rawatina ci quartier yi ngeen nekk léegi ñu ne nag pourquoi pas meewu artistes yi maanaam li nga xam ne tey jii artistes yi mën nañu jël ay messages jëmale ko ci programme élargi de vaccination ñu mën a euh, euh, euh, wéyale maanaam def une grande sensibilisation pour information bi gën a jàll parce que artiste des fois bu ko defee ci sous forme de forum théâtre lii xale bi lii nga xam ne moom mooy yaayu xale bi lii nga xam ne moom mooy papay xale bi ak yeneen parents yi nga xam ne mën nañu fekkee ndaje bi dinañ ci am li nga xam ne moom mooy la information ba doon mën a nangu ñu ñàkk seeni doom parce que boo gisee loolu Sénégal euh, ñàkk bi bi mu dugg jógee ba léegi dafa am ay waajur yi nga xam ne dañuy sàggane seen ñàkk doom te loolu lañ ci jublu vraiment bu ngeen defee genre théâtre comme yooyu message bi jàll ba ki nga xam ne tey dafa sàggane ñàkk doomam yooyu a indi doomam i kër yi waa kër docteur ba nga xam ne ñàkk ñàkkam yi dina ko léegi tuuti may def benn rappel rek balaa may tëj ci li nga xam ne moom mooy calendrier vaccinal parce que calendrier vaccinal boobu dañuy wax ne xale yaay ji tey jii bu indee ci biir structure sanitaire moom ci boppam. dañuy dañuy ñàkk xale bi li nga xam ne moom mooy hépatite bi dañ ko koy ñàkk mu mën ko aar ci feebar boobu léegi tey jii bu demee euh, ak euh, ak polio bi mooy toqal bi ñu defal xale bi nga xam ne mën na ko aar ci li nga xam ne moom mooy feebar bi ñu naan ci ñu naan feebar laago bu jëlee loolu bu demee ba am euh, un mois 15 jours. dafa war a jël euh, ñàkk bi naan aussi muy période boobu jëlaat li nga xam ne moom mooy penta jëlaat li nga xam ne aussi moom mooy BPI donc ak li nga xam ne aussi moom mooy rota yooyu yëpp aussi boo ko xoolee ay ñàkk li nga xam ne daf koy aar ci feebar yi nga xam ne ci juróomi feebar yi muy ñàmbataan ak li nga xam ne moom mooy tétanos euh, bi daf ko ci aar aar ko ci nga xam ne aussi moom mooy polio boobu ak biir bi ñu naan biiru tànn wala biir buy daw muy muy muy boobu loolu def ko ci aar bu demaatee ba am ñaari eh, weer ak ak ak fukki fan ak juróom bu deux mois quinze jours mu tàmbaliwaat jëlaat ko mais boobu li nga xam ne moom mooy VPI bi du ko jël maanaam feebaru polio boobu vaccin polio boobu bi nga xam ne tey jii moom ci boppam jëloon na ko ci bi mu amee weer ak fukki fan ak juróom bu amaatee deux mois quinze jours du ko jël donc ñu oh, ñëw ba mu amaat trois mois quinze jours mu dàppale waat ñàkk yooyu nga xam ne jëloon na ko ba BPI boobu ma lay waxaat mu jëlaat ko parce que polio gis ngeen mooy feebar bi di def euh, di joxe laa ko dafa nekk li nga xam ne dafa sonaloon xale yi moo tax dañ ko koy defal bu toqal defal ko bi nga xam ne aussi moom mooy injection bi da koy jël ci tànkam dina ko jël buy doogay juddu dina ko dina ko jëlaat bi nga xam ne am na weer ak euh, fukki fan ak juróom 2 euh, mois ba 3 mois 15 jours aussi daf koy léegi bu ñëwee diggante maanaam xale bu amee juróom-ñeenti weer xale bi dafa war a jël lii di feebar bi koy aar ñu naan rougeole ak rubéole donc muy feebar ñax bi nga xam ne euh, tey jii bu njëkk ba parents yi seen bopp dañ naan wax ne man de amaguma doom tànk sama doom natul loolu lañ loolu loolu la parents yi daan wax. mais gis nga euh, euh, programme bi mu ñëwee indi ñàkk boobu da ngeen gis ne xale yooyu li ci bëri bëri bëri bëri bëri boo jëloon téeméeri xale da ngeen gis ne quatre vingt yooyu yëpp. da leen di aar yeneen 5 pour cent yi nga xam ne ñoom ci seen durant leur vie amaat nañu feebar bi da ngay gis ne même buñ ko amee feebar bi mënu leen rey da leen di tësatër rek ci tësatër rek lay def bu ñëwee du leen sonal du leen dara parce que jël nañu seen vaccin boobu kon loolu lay wan ne ñaq bii di euh, rougeole dafa nekk ci euh, ñàkk bu baax bu mën a aar xale bi ci ñàkk ba nga xam ne léegi pour ñu wax ne xale bi dee na ci ñàkk sax loolu déggutuñ ko depuis ñàkk yi bu ñu dëkkee ci Sénégal te parents yi respecté li nga xam ne moom mooy moom mooy ñàkk boobu bu amee aussi fukki fukki weer ak juróom ñu naan ko 15 mois dafay jëlaat rappel bi nga xam ne moom mooy feebaru nag boobu noonu comme ça mu gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy système immunitaire am boobu ci diggante boobu nag am na leneen li nga xam ne war na ko mën a jël da ngeen koy gis muy vitamine A yi nga xam ne bu amee juróom benn weer war na ko jël ba fi muy am juróomi ak tous les 6 mois dafa war a jël li nga xam ne moom mooy vitamine A bi nga xam ne dafay aar mooy tax muy am cellulaire mooy tax muy am croissance bu baax a baax ak li nga xam ne moom mooy garab garabu sànn garabu sànn boobu moom aussi mu commencé am ak mu commencé di ko jël donc 6 mois bu nekk mu war a jël li nga xam ne moom mooy garabu sànn gis ngeen ne garabu sànn tey nekk bi nga xam ne dañuy gis des bu euh, ëpp ñi ñi mu jàpp seen tànk i bët donc même sànn aussi dafa na lu muy def moo tax dañuy yi parce que lu am solo la donc loolu laa a indi ko ak yéen xam naa après dinañu am benn mise en bi ñu fi mën a maa ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup. waaw jërëjëf merci beaucoup euh, Marème Faye merci jërëjëf merci beaucoup merci jërëjëf. léegi nag dañuy commencer théâtre bi pour ñu commencer théâtre bi nag dañuy def un deux trois action ñu dem mu eggali loolu day bokk ba dina ñëw ci kii bi dina ñëw madame Faye di madame Diouf dina ñëw. ci forum parti forum bi ak président ak loo théâtre bi nag da ngeen ci am wàll yéen yéen ñu toog di seetaan parce que ñun problème bi rek la teg solution bi ci yéen lay jóge ñun dañuy teg problème bi solution bi ci yéen lay jóge théâtre forum la théâtre forum nag théâtre la ak forum mooy théâtre ak waxtaan suñu théâtre ba pare dañuy wax waxtaan léegi nag daf ñetti parti la parti bu njëkk bi acteurs yi dañuy jouer pour yéen ñaareelu parti bi dañu acté comportement acteurs yi ci kaw scène bi comme ni ma ko waxee woon sànq ñeenteelu parti bi nag suñ ci ñetteelu parti bi suñ ci tolloo la invité ci kaw scène bi wala ñu dégg la suñu micro nga joxe sa xalaat ci li nga gis loolu mooy théâtre forum comme nag dañuy def un deux trois action ñu démarré aci ñu def ayo nene nene ne tuuti ayo nene nene ne tuuti ayo nene nene lu tax naqatul xale yi xale yi bu njëkk waaw nii la leen daan naxee di leen woyal naan bay ma lamin daara bindal na ma téere téere yaa nga Saalum Saalum ñëpp la. parce que ñeenteel waaw waaw waaye lii na nag. nii la daan naxee xale. waaw waaw xale bu nga koy naxee. soo màggee nga am dëgg la waaye xale yi léegi naxatul leen xamul lu leen naxee. waaw téléphone. téléphone waaw loolu buñ rek tàmbali saaga. ndax internet dëgg la dëgg la. waaye nag ndox nag fa daan taa. boo demee ba léegi fekk ko tepp tepp baay. waaw ndox ak tepp tepp ak yëpp dem ak lu ma taxew rek yow jàppal ni ku néeg nga. néeg waaw lu ma def. lu war a xale bi jooy. xale bi damaa xëy ci suba dem ñàkk ji ko ñàkk yi nag moo jar moo tax muy jooy waaye may naa ko siru. buy yeewu rek yaram bi di seet. surtout jam. ayoo nee ne. ñàkk yi ñoo ak sa effet secondaire yi lan ñàkk a baax a waral ba xale bi jooy ban effet secondaire la am te sama doom yëpp ma ñàkk leen kon lan la bu effet secondaire lan la dafa effet secondaire moo moo waral ñuy jooy boo ñàkkee sa doom booy dem da koy jox sirop mu naan soo ñëwee ba ay 6 jot nga joxaat ko sirop mu naan bu tëddee bu yeewoo jeex na audio bi waxul loolu loo audio bi wax audio bi leen salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi tubaab bi ginnaaw bi ñu xaymaa adduna bi xool nañ ko xool nit ñi danoo bare bare bare bare ba suuf si attanatu ba looloo waral ñu créé ay ñàkk ñàkk yooyu nag dañ koy ñàkk xale yi mujjee tudd ngir bu ñu màggee tudd am doom man nag damaa bëgg képp ku ne nga dem seen waa kër ku ma ñëw nag nga dàq ko taxaw dàq sax baay baay sa audio bi waxul dëgg audio bi wax na waxul dëgg baay wax na dëgg waxul dëgg de xanaa Njaay tegalul ko Njaay man Njaay sa jëkkër jëkkër moo xëy te suba yëkkati xaalisam jox ma ne ma dama ne lekk sa doom. ñaari jox ngeen ñu moo ma ko jox ana Ndiaye. bu ma ko laajati nag. yow xam nga Ndiaye fan nga daan fekk. baax na ba ma gis Ndiaye bu ma ko laajati yow ba ma gis Ndiaye rek. ah ba nga laajati ma ko. ayoo nee nee nee nee nee nee tuuti. doxo doxo doxo dox ba sonn rek ah. waaye ñun kenn xamu ko waaye damay dox ba sa tànk yi ci boppam day daal di néew rek. ah te xale yi dañoo góorgóorlu wul dara waay ah. Ndiaye Modou yow soo ñëwee fekk nit ñi toog xanaa balaa ngay nga nuyu ko. salaamaaleykum ana bàjjan yow fii kan fekk mu toog. Ndiaye Modou ana bàjjan fii ba ah. nga daan bàjjan. Ah. yéen daal kon daal li ko moom muy sol ay ndoket di tëralu. sol ay kokkatal nga yaakaar ni kooku moom magum jëmm la gone gu ndaw la dama ne yaram moom boobu foo laal rek dox na cur foo laal meew na cur dégg la waxam bu ma ko dégg ci laa wax yow màggat nga naan ma nii baal ma wóor ma ko moom laa sax koy bëgg a def waaw. waaw booy def. maa ngi nii koy. kii moom. lan moo tax. mu dinaa la bàjjan. da nga doon gën a gu ndaw. moom mu mag lu fuuf. luy nooy loolu. yow xamoon ne gox bii ñu nekk mën naa fi bàjjanu gox. moo waral mu naan ma bàjjan. ah njëriñu bàjjenu gox ngay laaj. waaw gis nga quartier boo dem am na bàjjenu gox suñu bëggee quartier ba suqaleeku bàjjenu gox na njariñam mooy social lay dox ak santé ak éducation ñun loolu dong moo ñu tax a jóg ci gox ba ñu nekk. santé moom ak éducation loolu lu baax ci réew la yow daal boo doonee bàjjenu gox ma doon fa lu gox rek. mbaa maa ma baax maar yow maar lan nga may defee nii lan la lu xew waaw loolu yëpp waxuma ko mbaa jàmm la baa nga daal micro waa léegi man loolu lan laa ci man micro raamata gis nga sa doom ji dafa jub benn nga ko ñàkk delluwaatoo hôpital moo ne nañ dem ñàkku faj bi yaay ne lank na duñ ko yóbbu ba mu amee un mois quinze jours ñëw naa seen mu dàq ma ni xaj ma del si waat man six mois ma del si waat mu dàqan ma ni xaj gis nga man seen du ma fa dukaat bàjjen tamit jàppale ma rek bàjjen waa léegi nag Ramata yow loo ci sa man mën naa ko bii moom dina la rus bàjjen ñu dem rek ngir yàlla yow tamit su bel xale day dee samay waaw baax na ñu def surtout. man naa dawal oto moom oto moom bis bàyyi naa dawal ndax mënu maa nekk chauffeur nekk nekk chauffeur yor sama boto dem ba màgget nekk ci garage bi gone yi lank kandaara naan ma yow da ngay cotiser comme ñun naa nag moom nekk màgget na damay bàyyi dawal oto ak ku bi nu bana laa ko cotiser ñu delloo ma oto moom dootuma ko dawalati moom salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah yow Badja. waaw. waaye ma sëy Badja lan laa la sama kër gi. lan nga ma waxoon sa kër. sama kër bu fi tege sa tànk. ah de taxoo maa jóg. xale bi laa jël si ngir yóbbu ko hôpital. xale ban sama doom. sa doom waaw sa doom. ngay ko jël di ko yóbbu hôpital. waaw ah Badja yow ki ma yóbbu moo nekk nii. yow lii ndey nga bàyyi sama doom di muy jooy ngay dem kër Badja ni ko foofu yaay ki ma yëpp te xam nga lu ma lay xamal sama doom bu woppee man naa koy fajal sama bopp ndax na maam daan fajee laay faje man su ba ma toll nii ñoom boo ma saan wopp sama maam dalaa indi mbante mbaari dalaa indi mbante mbaari xas loora nit lépp laa indi faje ma ko fekkee damaa nga sax mu jël doomu daal xalam ma kon ma tane man noonu laay fajee sama doom waaye jël ma sama doom naan dama ko yóbbu hôpital waa hôpital boobu doona mën a faj bay mën a faj lan ma faj man baayam maa gën a wopp ñëpp maa ngi nii bu ma noo xool bala maa def leen ñu bind na moo këyit ordonnance moo mënta jënd ordonnance moo loolu nag laa bëgg a dàq dana mën a def dafa mën baaju. garab yi daa ah nga lan la yow bàyyi ma sëy. Ah. waaw. mais laa ko demee ci ngay def bëgg nag nga déglu ma ma wax la dëgg. yow yaa ngi nelaw te yeewoo de yow bàyyi ma sëy ne nga ne yow biip biip ñu bindal yow magam jëmm nga xale bu juddoo. ba nu muy amee juróom-ñeenti at hôpital da koy faj te du fay dara moo waral xale bi ñu koy may ñaq yi di ko faj te du fay dara yow magam jënd da ngay faj bu sa bopp ak xale bu leelu weesoo gis nga ñaq yi ngay bañ dafa baax ci xale bàyyi ma sëy ni bu njëkk ana ngas ana xureet ana njambataan ana biir buy daw ana ana pëli ah ana ana polio loolu da ko fee gis da yaakaar ne dafay jeex. yooyu nekk déglu ma jeexu fi de cest nam daan ñëwee bu njëkk. la tu ndax ñàkk yi moo baax bu njëkk ñàkk daaw ñu ñàkk moo tax feebar yi daan leen dal ba xale yi di dee si si ngas léegi nag ku ngasat da lay gisati da gis sa doom xëy soj am tuuti yaa du xam ne dafa ngas ndax ñàkk yi moo baax xam nga lu ma nga jël sa doom yóbbu ko hôpital ñu fajal la ko te di ko ñàkk li nga nekk du dëgg te du yoon ku la ko waxul nag dalaa ragal kon nan ma ragal sama doom ji ndax sama doom ji dama bëgg mu ami doom amati doom te ñàkk yi ku ko ñàkk dootu doom waaleykum moo de. ala lu xew Ndiaye téye sa loxo ndax Ndiaye mën a yow mën noo nekk sa garage ba ñu wax la ñuy wax ba pare Ndiaye nga yolle ko jox sa jabar muy dem ñàkk doom yow nag damaa deen sa xel mi dara nekku yow man ma jël sama doom ñàkk ko ci ne moom nga ñàkk fayda ah, wax naa la ba suudu déggoo man sama wér gu yaram doom laa laa sàmm comme yow bëgg wér gu yaram man sama bas laa sàmm saa yi maa ngi door mi di di def lu naaj waaw waaye nag leen laa lay teel a wax leen laa lay teel a wax xale moom day ñàkku ji tay mënoo ci leen waaw eh génn xale bi mu ñàkku ji mari génn leen xale bi day ñàkku laa waaw théâtre bi neex na wala neexul tàcc leen ma xool merci beaucoup léegi waxoon nañ sànq ni théâtre forum ñaari pàcc la ñetti pàcc la pàcc bi nekk ñu ñooy pour yéen joué nañ pour yéen ci ñaareelu pàcc bi la ñuy ñëw maanaam mooy jugement bi comportement acteurs yi ci kaw scène bi ndax seen taxawaay baax na wala baaxul comprendre ngeen léegi dañuy commencé di juger ci kan la ñuy njëkkee euh, damay njëkkee ci famille bi famille bi laay njëkkee famille bii famille bii seen taxawaay baax na wala baaxul baax na la moo tax nga ne seen taxawaay baax na waxal la moo tax nga ne seen taxawaay baax na maaleykum salaam. waaw seen taxawaay baax na parce que njëkk xale yi day aar xale yi daf leen musal ci laago et puis pays ak sibu ak yaram bu tàng. Ah. comme bi nga gis ne kii yóbbu ay doomam ñàkki leen taxawaayam baax na baax est ce que yéen d' accord ngeen ni kii taxawaayam baax na d' accord ngeen wan leen tàccu leen ma xool yéen ñi d' accord comme fan laa xool lañ koy yóbbu bu taxawaayam baax ci ci ker gi ñu boole ko ay tàccu fan mooy ker gi fan mooy ker gi fii mooy ker gi acca boobu kër gaa ngi nii tàccu léegi dañuy jël famille bi famille bi ñaari ñi seen baax na wala baaxul baax na est baax na seen baax na jëwriñ ndax baax na. baax na parce que théâtre moyen d'éducation et de communication. jërëjëf te li ñu def mooy wane na surtout bàjjen elle m'a beaucoup séduit. bàjjen bi mais bàjjen bi violent na de. waaw mais agression agression la def ci biir kër jàmbur. non non agressé wul. Ah, ah kay. te te bu doon agressé ba mu am réussite. ba loolu génn li mu bëgg mu génn sax baax na. ah waaw. loolu nga koy digal. waaw loolu laa koy digal. mais est ce que bàjjen warul gën a warul woon gën a nooy waroon gën a dal waaye madame Diouf waaw loolu laa bëgg a dégg ma madame Diouf am bàjjen mi waroon na gën a dal waaw yes waaw. asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. bàjjen kontaan naa ci

bon moom la baax na nijaayu gox bi baax na jëkkër ji waaw tey kon bi bu xale la mu bañ comme dafa war a indi ak boole jërëjëf mère Diop seen jërëjëf suñu yaay yi comme ñëw ngeen merci beaucoup waaye da ngeen ñëw fekk nit ñëpp toog taxaw leen rek ñu eggali pièce léegi ah, président yaakaar naa ñu seen taxawaay baax na waaw. bon comme ni ko ki njëkk waxee aussi. Uh-huh. Uh-huh. parce que dañu nekk jamono boo xam boo duggee kër jàmbur aussi dem da ngay négocier ba am li nga bëgg. li nga bëgg. parce que boo ñëwee góor mën nga fa jël loo xam ne ëllëg. Uh-huh. li nga doon faj day nekk saako toujours jàmbur. ok loolu tam dañ koy sóoraale. mais c'est bien baax na aussi. jërëjëf comme loolu ñu xaar ba ngeen ko ci kanam ñu ñëwaat comme ñu yóbbu leen ci kër gi boole ko ak ay tàcc ayca léegi ñu jël famille bi famille bi. xamee ngeen kii ki mooy gan kii mooy gan moom mooy borom doom bi est-ce que borom doom na dafa taxawaayam na waaye dafa yéex lu tax nga ne dafa yéex. dafa yéex parce que euh, dafa déglu borom këram ba xale bi feebar parce que xale bi mu euh, bakkan bi mënoon na cee lool. Uh-huh. voilà te moom mooy yaay moom moo jur doomam. bàjjenu gox bi jege na ko mi ko doon sensibiliser xam ne ne xale bi dafa waroon a ñaxtu kon waroon na jël responsabilité parce que ni parent amee responsabilité ci doom noonu la jigéen amee responsabilité ci doom warul xaar jëkkëram d'accord pour mu dem ñaxtu ji doom mais est moom est na ay matu maanaam jël na ay responsabilité en tant que jigéen ci biir kër waaw loolu wax parce que dafa dem ba ba ba amul pexe ba affaire bi ëpp loxo parce dafa dafa ragal ñàkk doomam moo tax mu daw dem gis ci bàjjenu gox bi pour mu pour mu dimbale ko. jigéen yi mel ni di ngeen ko faral di gis ci li ngeen seen liggéey. am pagaay loolooy indi ñuy ñàkk seen i doom loolooy indi ñuy jàpp euh, euh, euh, xale yi di wàll di wàllee feebar bi ak yeneen xale. comme xale bu ñu ko ñàkkul bu amee feebar day wàll day wàll feebar day wàll. voilà day wàll moromam. koy indi mooy muy bu góor bu mu amee rek moom mooy maanaam. Ah. ñi ñi amul ñi am ñi ñi ñàkkul ñoom ñoo koy am. mu ngi noonu. jërëjëf mais ku jël vaccin bi doo duggi comme prévention la ñàkk yi. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup Mariama léegi nag fan lañ koy yem ci digg bi wala ci ci naaj bi wala ci naaj bi la war a dem ci naaj bi parce que jël ay responsable est ce ngeen ci naaj bi la war a dem d' accord ngeen ci naaj yéen a d' accord ngeen d' accord la moo tax nga ne d' ndax d'accord mu dem ci laaj ci digg bi laa d'accord mu dem ci laaj bi laa d'accord mu dem ci digg bi ndax lu mu am responsabilité responsabilité dañ kaa yilif ci biir kër gi dañ kaa yilif doom ji daa ku ko séqal lu metti metti mooy def na li mu waroon def mais mënu woon a def lu ëpp loolu mënul weñ loxo jëkkëram mënul weñ loxo jëkkëram pour def naka su dul noonu est-ce que ndax mën na cee tas pour man est-ce que d'accord loolu lay sauvé d'accord ngeen est-ce

est ce que d' accord ngeen taxawaay motul comme ñu yóbbu ko ci naaj ñan ñoo d' accord ko ci naaj bi yëkkati leen seen loxo dañuy voté vote lañ jëm ñan ñoo d' mu dem ci naaj bi ana ñu d' accord ñu dem ci mu dem ci naaj bi ñu d' accord mu dem ci naaj bi yëkkati leen seen loxo dañuy voté dañuy voté 1 2 3 4 5 6 ñoo d' mu dem ci naaj bi. kii fan la jëm ah ci ci naaj bi la jëm lan moo tax ngeen ne ci naaj bi la jëm d'accord ma ñëw lan moo tax ngeen d'accord ci naaj bi la jëm nga ne am waxal waaw lu mu doxalee du wàllu borom kër. bala ngay tere war ngay gëstu ba xam li ngay tere lan la. ok mais moom gëstuwul laajul dafa di lii rek mooy am te xamul moom moo war a aar bi ak boo lan moo ko war moo tax mu war dem ci naaj. moom ci naaj la war dem est-ce que d'accord ngeen yéen ñëpp ci naaj la war dem. d'accord grand nañ déglu grand bi waaw man dama ko xaw a mere tuuti quoi. da nga ko mere lan moo nga mere. ci la war a def. parce que droit wu xale bi respecté wu. respecté wu xale bi dafa am droit même bu nekkee tout temps que. Ah, droit xale daa am droit. dafa am droit. ok donc xale bi dañ ko waroon yóbbu pour mu ñàkk ko. ensuite affaire tradition baax na trop mais xale yi dañ leen war a yóbbu ci poste santé yi nii jël seen ñàkk. waaw ensuite moom chauffeur la. ci otoom lay nekk mën na di waxtaan peut-être di euh, orienter nit ñi di bañ a dem ci poste de santé bi donc. ah moom moom relais la war a doon. pour nit ñi mën a dem ñu dem faju ji. waaw ah, boo duggee sax si. waaw ah. war a sensibiliser nit ñi pour ñu dem. au niveau des postes de santé pour la yi dañu am benn rôle ñu war a joué ci biir xale ci di fa biir oto loolu loolu nga jàpp comme jërëjëf merci beaucoup sa xalaat rafet na ñu dem démb gëstu ñu ko woon est que la fan lañ war a gëstu est-ce la mooy ko dëgg la ñoom ñoo ko jàng ñoo leen ci doon leer a leer loo xam ne mën nga cee jàpp dama gëstu yow man bu ma neexee ma toog sama kër wax a wax ba sama xol seetu dugal ñëpp ci séddale ko kooku du jërë boo xam ne dañ ko war a jëlee information information bi dëgg-dëgg da ngay dem ci waa kër docteur am nga bàjjël ko am nga fajukaay bi nekk sa bopp laaj la ñu leeralal ah, jërëjëf merci beaucoup. comme ñun nañu moytu di déglu ay ojo yi ñuy dugal ci biir kër yi naan partagé leen ko nangam nangam fekk org amoo leen maanaam li jëm ci wàllu wàllu wérgu yaram képp ku soxla information yi da ngay dem ci kër docteur ngay dem pour mu jox la information yi leer naññ acca bisimilah. confirmé li madame Diouf wax te ci moom ay kàddoom boo dégloo. Uh-huh. dafa ne waa producteur dañuy war a wàññi ñuy jur. dañoo war dañuy wàññi ñuy jur waaw. ndax dëkk bi dafa bëri. dafa bëri te am ku nekk yor nga sa xel yow bu sa jabar ëmbee nga ne ko dawal dem kër docteur. bu uh-huh. sàmmal la sa ëmb. ba nga indi jot mu taxawu la ba nga indi jàmm jox la doom bi ne ci jàmm. waaw bu bëggoon a def dara dafa def ci ëmb. la de du xaar nga jur. wax nga dëgg de. kon nag xam nga loolu nit nit moo koy xalaat. moo koy xalaat kon ku nekk yaa ngeeg sa xel. Ah. njaboot te ñi ñu yëkkati mooy sàmm njaboot bi njaboot bi ñëpp jëm ci kanam ñëpp nekk ci jàmm. jërëjëf merci beaucoup. ah loo lan nga xalaat ci góor gii nii comme en tant que góor ngay góor lan nga xalaat ci kii. waa xam nga moom moom dafa dégg toujours dañu fi ñuy wax rek. waaw moom yi di wax. ba tax mu bëgg a tere jabaram ne ko doo dem nekk ak xale bi. Uh-huh. Ah, loolu bokk na ci ñàkk gëstu bu gëstuwul doo am jamono yoo xamante ni nit da ngaa war lépp lu ñu la wax sax ne da nga war a dem gëstu ji lii mooy lii. parce que dañoo dem basé wu ci li mag ñi daan wax rek maanaam formation boobu nit ki dañuy lekk man dañuy lekk formation ba tax lépp lu ñu la yor ñu def formation sa bëgg ngeen jàpp seen bopp xam ne doomu aadama bi bu duggee. dafa war a dem seeti kër docteur ñu wax la lan mooy lan moo lay dimbali sa njaboot sa bopp say sa a gérer sa bopp gérer sa njaboot mais takk jabar yore doom rek taxul ñuy wax nit ki da nga war a dem di gëstu ji moom nag dafa gëstu jiwu ci oto yi la nekk dama ko ñëw tawul dara mi ngi jënd comme da nga jàpp dafa ñàkk ci ñàkk xam la taxaw dafa xamul dara xamul dara oto bi lan xam ak dépense bu ko rool doon jeex na léegi Moustapha d'accord oo wax nga dëgg de man dama ay doon fàtte jégal ma dëgg. pas bañ a d'accord 100 pour 100 waaye. Ah, ah, waaw comme lu madame wax. loolu important benn bi xar remplaçant bi. bu la ñu remplacé. merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ merci beaucoup. dafa am lu madame wax lu am solo. waaw mooy que moom boo xoolee xare bi yëpp xare bi muy xare yëpp mu ngi bëgg a aar njabootam. dëgg la donte information bi mu jot baaxul. ndax mu ngi naan dañuy wàññi njuru xale yi buñ leen ñàkkee bu ñu màggee waxul dañuy wàññi xale yi de. ci li ma dégg dani dañuy wàññi njur mi ndax xale buñ ko ñàkkee bu màggee bu mën am ay doom yu bari man loolu laa dégg ci li mu wax. waaw léegi nag li ma dem waxaat dafa am solo mooy ci jël information bu baaxul. kon information yi nit ñi dañ kaa war a toppat fukkam yu mel ni moom ñu ngi xare ci biir kër yi ba ñàkk seen doom te ñàkk xam moo leen ko yóbbee. ba xale bi faaf ci ay loxoom bala moo doon am gàcce mooy xale bi faaf ci ay loxoom ndax dégg bu njëkk bu ma masaana dañ koy diw doomu taal bu leen tax dégg te ku seetlu jamono bii nii. Uh-huh. xam ni feebaru xale yi wàññeeku na bu baax ku waa ko piis bi. mooy xale yi seen feebar wàññeeku na. yu bari ay ngas ak yow li da koy dégg ay jaare yi nga xam ne xale ci la daan jógee xiiboon dootul baax ba ilaa yomi diin kon ñàkk yi man pour man baax na bu ama ba baax a baax a baax kon képp ku fi jógee xale yi weesooguñ ñàkk fexeel ba xale yi ñàkku bu nit ñi ñëwee seen kër nga déglu leen man information boobu laay jàlle merci. jërëjëf euh, Moustapha Atia. waaw li ma ciy dolli rek mooy leen ni kon waa santé kon li ñu def dafa bu ñu bëggee information yi di jàll nañuy gis ni artistes di leen respecté di leen jox seen cër parce que artistes yi li a jàllale dafa bëri. boo il faut ñu bàyyi ko xel parce que lii artistes rek moo ko mën art moo mën a jàllale ci réew mi dafa bëri. information artiste nga jox mu jàllale ko boo bëggee information bu jàll kon ni ngeen waa Sinthiou Ba di leen xam ne fi ngeen teg tànk foofu la merci beaucoup. jërëjëf euh, président Ndiaga Diakhaté léegi yow soxna si da ngay ñëw fii. nga waxtaanal am mag kii jéem na ko convaincre pour au moins mu yóbbu xale bi mu dem hôpital. kon laa kii jëloon naa ko sànq Mariama def nañ bu am solo da kenn ñëw ate abi ñëwal léegi abi léegi am na léegi naan un deux trois nga indi muy leen ma fii dañu dañu dañu wax un deux trois action moom mu indi ndaw si ci borom këram directement pour mu waxtaan ak këram pour mu yóbbu ko mu kii ko acca jël la ñu ko suñu ko ci bopp bi yow yaa gën a daase yow yaa war a coow li war a coow li yow la li tax ma mere bàjjen yaa tax ma mere bàjjen ah ah, ah. yow la da ngaa dem génn sama xeeb ma xeeb samay conseil dem ba di docteur nax nga sa bopp nag xam nga lan laa lay xamal waaw. man maay dé man maay am sama jot dina déglu nga naan sama yur ni nga naan yur nii xalaatuma sama dina. xel yow lan bëgg man sama doom. am nga dëgg rek la man kon dëgg yaa kon yow mi ñu ma dëgg yaay taxaw déglu man maa bëgg man sama doom. mu am doom. Mm-hmm. muy sama sët. sama sët boobu amaat doom. Ah. sama doom amul sët. sama sëtaat boobu amaat doom. sama sët amaat sët man loolu laa bëgg. te di toppate di sëtante di sëtante di sëtante du la nekk. bu amul wér. bu amul wér. bu màggee foofu la dul a amee doom ndax day xiiboon tey ma xamal la leen tey jii. gis nga xale jigéen bi nga xam ne tey jii amagul ñaari at. xiibonee ci at boobu. bu màggee day am jafe-jafe am doom. te doom bi. baax na waaye ñax yi moo ndax daf koy aar ci fukki feebar ak ñett fukki feebar ak ñett. xale bu juddoo yàq bi koy njëkk a nga xam ne xale bu demee ba nekk am doole fi nga xam ne fa la la war a jëriñee fa lay commencé am cancer du foie nga daw hôpital di nga jaay ay millions de tax nga ñàkk sa doom amuloo kenn ñaan ko boobu xale bi léegi ci biir salle d'accouchement bi ko koy defal ndax bu fekkee ni yaayam daf ko am daf koy aar néew nga xam yaayam daf koy a xam nga loolu na solo beneen bi ci topp mooy ci biir daf ko ci nga boo fee boo ko feebaree tànk sa faj woo ko doo wér te faj bi dafa métti ndax di nga ay doom foofu benn weer di ko ay doom door a wér xam nga loolu jafe-jafe la tam beneen bi ci topp mooy ci biir salle d'accouchement bi dañ jafe defoon polio polio mooy feebar bi nga bi nga ni dafay indi laago pour mi koy ñàngal mu polio laago lay indi te laago boobu kenn mënu ko faj dellu na police boo amee feebaru polio ay heure waxuma la ay fan ci ay heure ci la laal te laal yàq na kenn faj moom lay dundee ba keroog ñu génn àdduna xam nga loolu kenn bëgg ko bu boo amee sa doom bëgg nga mu dund am doole taxaw mën a jàng mën a liggéey ba mun laa jëlee ëllëg ko mën a loolu lañ ko bëgg xale beneen bi ci def mooy ñëpp ñooy bu ñu jëlee huit ans d'accouchement dinañ ko jox rendez-vous bu amee weer ak genn wàll su amee weer ak genn wàll studio bañ ko defaloon huit ans d'accouchement parce que benn dose bi doyul studio bañ ko defaloon huit ans d'accouchement dañ ko koy defalaat pour mu aar ko hépatite boobu dafa am vaccin boo xam moom la ñuy wax penta boo déggee femme dañ naan sama doom bi penta la jël penta boobu dafay aar ca paquet bee boobu da koy jëlaat ci la nekk da koy aar ci foofu ni bu dee xaw ma njàmbutaan bu dee ak njàmbutaan daf ci nekk dafa am tamit tétanos ak loolu benn forme méningite la am nga méningite xale bu ko am dafay bàyyee laago boo xam ne tamit dootul demati dootul deñati fii da leen di bàyyee ko ñu bàyyee leen nduur des fois mu bàyyi la fa daara boo xam ne day paralysé loolu ay cëram boo te mënu ci dara xam nga loolu kon na ci aar suñu njabootam ah dafay wax foog naa d'accord ak moom ci rek beneen bi mooy konomo da koy jël teg ko boobu tamit konomo xale yi biñ juddoo da ko seen yaram am doole amee feebar konomo day jàpp seen dënn ba xale yu ëpp li ñu doon daañu balaa ñuy am ñaari at ñu feebar ko moomu dañu daan jëlee voilà sama doon yi dafa toog bañ sëppal nga def ñu nees mu tëw rek dugal ci musée ñenn àdduna boobu ci la bokk beneen bi ci des bi ci jël boobu tamit rotaa bi lay doon waaw rotaa bi nga xam ne bu demaan ba weeru janvier février ba mars day am épidémie jaare si xale yi daw ñi ñàkk sax seen bakkan lu bëri boobu dañ ko walaale tamit xale bi bu amee biir bu daw tamit du ko lor ñoom ko daan lore boobu ci la bokk xam nga feebar yi li a bëri de ni mu meloon polio nga daan gis ñuy toog wala ñuy raam amatul amatul presque ba ba vaccin yooyu daf koy jëlaat bu amee ñaari weer ak genn wàll bu amee ñetti weer ak genn wàll daf koy jëlaat parce que benn dose bi ñaari doses yi bu ko jëlee ci lay door a am nag ay soldats yu commencé defaru pour ñu ko aar soldats ci biir yaram bi <laughs> soldats ba nga xam ne yow duggee ci yaramam ko amee ñetti weer ak genn wàll aar ko nag ci feebar yooyu mën a limal yëpp ba bu gis doom jàngoro bi même bu gasee moom fekk na yaramam préparé na ba pare. ba am ay soldats yi nga xam ni day mën a feexal doomu jàngoro beneen bi ci des mooy bu amee juróom-ñeenti weer foofu lay jëlee ñàkku ngas ñàkku ngas bu ko jëlee xam nga di ngas bu njëkk ba ko ñoom yaay dañ doon wax ni tant que ngas jaarul amaguma doom il faut nga ba pare ba wéeru door a xam ne ah fi am naa doom sinon léegi dañ daan am ay fukki doom ñaar ndax naka fa jaar. am loolu jeex na boo kër gi la bul dem. ba am soldat yu bëri yoo xam ne bu demee ba am ak ñetti weer daf koy jëlaat encore pour ñu renforcer doole xam nga lu tax ñu doon dóor boobu dañu defaat ay analyse gis ni xale yi ñu leen ñàkkee téeméer boo ñàkk juróom ñett ci ak juróom ñoom day am soldat yu bëri yoo xam dina mën ay dugg soldat am ñu ne nag comme que am na fukk ak juróom yoo xam ni day am soldat yu manqué nañ leen boole ñoom ñëpp ndax ñu xam ci la ak ci la wala tee la nañ leen boolewaat ñoom ñëpp ñàkkaat leen pour ku nekk cent pour cent soldat yu ñu xeex ak doomu jàmboro. yooyu yëpp daal ñàkk daal mooy aar yooyu yëpp. mooy aar yooyu na ma may la beneen doomu jigéen yi ñun yaay amuñu chance yi cancer du feebar di koy indi doomu jàmboro di koy indi ñoom léegi am nañ chance ñàkk ko xale bu amee juróom-ñeenti at dañ ko koy ñàkk léegi yaatal nañ ko sax état Sénégal def nañ xaaj ba yaatal ko dem na ba léegi fukki at ndax foofu lañ kon ñun lañ ko aar ci feebar bi balaa muy sëy ci taseeg boobu jàngoro bi ñu ñàkk ko benn su amee juróom benn weer ñu ñàkkaat ko beneen pour mu aar ko ci cancer xam nga cancer fu mu am rek xaalis dina jeex te doo ñu aar leen ci loolu tamit xale bi aaru am chance aaru am chance am seen yaay loolu de tax mu ne pour waxtaan bëgg sama bii ba yóbbu ma màkk loolu dara amul ma baax na wala baaxul. kon daal su la déggee. waaw jot na sëkk. bépp waajur. waaw sa doom. Mhm. dem yóbbu ñàkk. nanu nanu xale yi. Mhm. ndax wér gu yaram xale yi. moo nëppal waajur yi. wallaay ah kon nag nanu ñàkk xale yi.